li sadinatan bikum lil janna min daari minan yaatal minna mbokk yi ñu ngi nuyoo di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jiital ci nuyoo euh, xalifa général Cheikh euh, Mountakha Mbacké te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te kàttanal di nuyu Euh, sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne moom lañ fekk si fii ci jotaay bi fekk si ko ci kër gi ak ci barab bu màgg bi ak ci bis bu tedd bi euh, di jël suñu nuyoo ak suñu ziyaar ba tey di ko jaarale ci moom mu jàllaleel ñu ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa kër Soxna Maymuna yëpp di am mbégte mu rëy nag ci toogaat ak euh, mbokk yi ci jotaay bi comme ni ñu ko baaxoo woon di ko defee laylatul xadr euh, heure bu ñëwee ci waxtu bi euh, ñu ànd ak sëriñ bi ci gataay bi nga xam ne mooy jotaayu xam-xam di jotaayu lislaam waaye jotaay bu bari ay ngëneel waaye tamit di feddali suñu kóllëre suñu diggante ak sëriñ bi di ko sant bu baax ci yëg gi di ko sant bu baax ak ci jàpp gi nga xamante ni jàpp nañu ko Euh, te lépp rek lu dul bëgg lislaam bëgg xam-xam waaye tamit bàyyi na xel soxna yi bu baax a baax ñooy sant bu baax ci taxawaay bi di ko sant bu baax ñi nga xamante ne ñooy njabootu soxna si di jéggalu si kàddu yi bu baax a baax waaye tamit di indi ab tënk ci li nga xamante ne moom la soxna yi wax léegi ndax dañoo sàkk woon ci ñun ñu waxtaan ci technologie am li nga xamante ne mooy ay njariñam ak li nga xamante ne mooy ak loraangeem ci njaboot gi soxna yi indi fi waxtaan wu am solo xanaa ci tënk rek euh, soxna yi indi nañ importance bi nga xam ne moom la yar am te ku nekk xam na ni njaboot gi ku leen defarul mënoo tabax ab société ëllëg kon farlu gu mat koo xamante ne war naa jóge ci wayjur yi ak ci kilifa yi di taxawu njaboot gi ci yar leen ci teg leen ci siraatal mustaqim Euh, soxna yi indi nañ ci ay leeral yu am solo waaye tamit li nga xamante ne moo dugg si ci yar bi ànd ak ñun bi walla mu ëpp lañu sax ci yar bi muy technologie bi nga xamante ni moo xew kii ci jamono te yàgg naa xew comme ni ko soxna yi waxee euh, di yaatu di yokku télévision bi ci la bokk rajo yi ci lañ bokk internet bi ci la bokk euh, réseaux sociaux yëpp ci lañ bokk egg foo xam ne ci ñun ak ub yar yaakaar naa lépp loo xam ne waajur ñoo ko waroon a féetee nangu na ko euh, soxna yi indi ci tomb yu am solo euh, soxna ma yaam ko te leeral li nga xam ne mooy technologie ak domaine yi muy feeñe yëpp waaye rawatina domaine bi jëm ci éducation te mu soxal yu ci jotaay bii tey waaye soxna yi indi fiwaat ay leeral yu am solo ba tey indil ñu njariñ yi nga xam ne am nañ ko waaye tamit indil ñu loraange yi nga xamante ni am na ko si njaboot bi te bu ñu xoolee ni ko soxna maam xari waxe woon rek dafa mel ni ak euh, dararuha akbaru min naf'iha comme ni mu ko indee ci aaya bi lor yi muy lor moo ëpp li muy jariñ euh, soxna jaara indi na ci ay leeral yu am solo ci yàq yi muy yàq ci suñu yarub njaboot gi yaakaar naa jamono ji fi ñu toll képp kuy wëjur képp kuy boroomu njaboot am nga ci tiitaange ci njaboot yi ndax xale yi nekkeetuñ lu dul ci téléphone yi du dul ci internet bi amaluñ ko waxtu du guddi du bëccëg temps yépp ñu ko siy waaye tamit soxna leena indiwaan nag ay solution yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ci taxawee saafara dina mën a am ci yàqu-yàqu yooyu lu mel ni ki état bi jël ci ay matuwaayam ci sécuriser lépp luy gaar ci réew mi surtout jëm ci wàllu xale yi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy jàngale ak ñi nga xam ne ñoo yilif diine ji ñu jàpp ci bu baax a baax xeex li nga xam ne lépp luy yàq la waaye xeex li nga xamante ni mooy yàq yi internet bi dugal ci suñu yaram njaboot bi kon ci gàttal rek ci tënk euh, soxna yi matale nañu xëy na tënkaar rek waaye matale nañu waxtaan bi xam naa dañuy jégalu bu baax a baax euh, di delloo suñu ziyaara di delloo suñu sant ci sëriñ bi di ziar ñëpp waaye tamit duñu jeexal di sant ñu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci délégation bi ànd ko waa Salihaat muy waa daara albatuliyee nga xam ni heure bu laylatul xadr ñëwee ñoom ñëpp dinañ ñëw fekk suñu ci jotaay bi ànd ak ñun jotaay bi bu baax a baax xam naa soxna jaara dina indi benn xale ci xale yi waroon a jàng alquranul karim euh, bu fekkee mu may dégg bala ñoo tëj mu jàng alquranul karim bismillahi rahmani rahim سبيلة بكل الجنة من داري